wàllugaloo ak li ko wax yéen a ko doon laaj de bio raxma agsi na foofee sa sanca ba indi leen ay produit bio naturel yoo xam ni dalay dimbali daf lay gunge waaye dalay jox taar wu yàññ te rafet lool kon yow mi dëkk Louga de soo amul ci produit bio raxma ci yow la des demal sanca ba wala nga toog sa kër woote ci téléphone bi 78 144 31 05 bio rahma ak Louga loo indi nañu produit bio yi kon yow mi dëkk Louga te ni ñu topp ci www.biorahma te daañu topp ci youtube bi biorahma Louga loo produit biorahma yaa nga ko wooteel ci numéro bi jaa ngeen jëf waay